am ci LACOS di coordonnateur bi Cheikh yaakaar naa ne foofu itam am nañ fa lu leer. leer na <laughs> nañ ah y' a plus débat. waaw leer na côté en tout cas bu dee information yi boo te moom LACOS la bokk sax. waaw mooy coordonnateur LACOS. donc dañuy gëm li mu wax donc. réunion bi euh, kër Habib si lañ ko defee waxuñu fa waxu candidat. donc jotuñu fa waxtaanee candidature euh, Cheikh Tidiane Dieye. Mm. mi nga xamante ni euh, bon dañu ne woon moom dafa bañ. Mm-hmm. mais voilà day dem parce que ñoom Sonko la waxoon. Mm-hmm. Habib si aussi donc euh, jot nga ki nga xamante ni mooy moom Mamadou Lamine Diante. donc mm. coordonnateur LACOS. donc euh, muy euh, mouvement des alliés yi nga xamante ni ñoom ñooy. jàppale les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko mooy loolooy LACOS d'ailleurs. ça veut dire que ñoom Sonko la. <laughs> amul keneen donc ñoom Sonko la nee na sax wax na am na lu am solo li xam ne wax na ko. Mm. nee na seen kóllëre seen ànd ak Ousmane Sonko. may na leen sax ñoom tey bu Ousmane Sonko ne woon nañ dem jàppale Amadou Ba. ñu dem hmm, jàppale ko donc ça dire que fi ñu. Ah, parce que nit tamit doo ko jox bopp rot ci làmmiñ bi. Euh, donc mën nañu nangu ne hmm. à ce niveau là peut-être. Euh, benn contre la. Hmm. bi nga xamante ni waa peut-être boorbale. pour n'accuser personne. peut-être euh, ñoom ñoo ko def. et puis c'est de bonne guerre tamit. pour ruubale encore une fois politique dafa laaj tamit. <laughs> parfois xam nga xumbal tuuti. peut-être voilà ñoom ñoo génnee mbir moomu noonu. sachant que. ça va euh, créer une certaine émotion nit ñi dinañ ci mm. wax dina euh, occuper la place publique euh, mm. euh, en tout cas tout ce qui est la l'actualité dina ko mm. occuper bi nga xamante ni nit ñi dinañ si mën a wax ba les intéressés même mm-hmm. mën nañ ci wax mais xam nga au delà de ça même ginnaaw bi ñu si waxee sax Euh, peut-être xam nga comme peut-être euh, bu nekkee manko wuñu carrément si wax bi. Mhm. Euh, mën nañ exploiter aussi ay brèches. tey Cheikh Tidiane Dièye leeral na setal deram mhm. mais aussi beneen côté tamit voilà quoi ñeneen ñi tamit ku nekk si ñoom mën na génn bëgg a leeral. bëgg mhm. setal deram wala seeni partisan. donc ku def loolu après donc wax yi mën na waroo. wax yi nag su waroo c'est peut-être voilà quoi peut-être dina doon li nga xamante ni dina jouer en la faveur yi nga xam mooy le camp xamante ni moom peut-être. c'est la division actuellement peut-être ah. que dans un premier temps newoon nañu Pastef du bokk mm-hmm. Pastef fexe na ba am ñetti candidat mm. donc euh, léegi nag jaxase peut-être carte gi diggante candidat yi ba nga xamante ni dina am mm-hmm. donc candidat yi ku nekk peut-être mer dem sa boor mm-hmm. euh, créer sax déjà divergence ci militants yi ak partisans yi parce que divergence bi ko déggee quand même na indi tuuti déception mm. ndax xam nga li ciy laxasu mooy bëri wax na ko docteur Cheikh Tidiane Dièye loolu moom c'est un secret de polichinelle ñëpp xam nañ ko mm, mm, mm. donc ñooñu suñ ba fii fi processus bi toll ñu dégg ne xëy na ñoo ngi xëccoo ku nekk naan man lañ war a tànn loolu dafay indi sax wax trahison ak déception ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen euh, faral di leen topp te xëy na yaakaar a xam nga tout moom tout tout dépend rek ci lan lañu waxtaanee te ca nga xamante commencement ba bi ñuy tënk dina Cheikh Tidiane Dièye dañ lay jox parrain mm. est ce que les termes du contrat étaient waaw loolu noonu lépp si foofu la dépendre. Mm. et puis je pense quand même euh, peut être divergence yi ñuy wax nii peut être euh, c'est sur la place publique ah. man gëm naa ne. Euh, ba ñuy tànn ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Dieye. Mm-hmm. y avait un préalable forcément am na si li si point yoo xam ne nañ ko. donc bu ñu tànnee ki nga xamante ni mooy Habib Sy tànn Diomaye. am na lu ñu waxtaanee parce que dans un euh, schéma bi nga xamante ni euh, benn candidat moo jàll donc loolu le débat ne se pose mm. il va de de fait être le candidat mm. euh, bi nga xamante ni mooy ngemb vraiment mooy candidat bi nga xam ne waa Pastef moom la ñu ngemb mm-hmm. mais tamit sóoraale nañ que il peut y avoir au moins deux candidats yu jàll mm-hmm. xam nga donc loolu tamit il faudra encore faire opérer un choix donc jàpp naa ne lu ñu jotoon xalaat la peut-être le moment la ñuy xaar peut-être pour euh, fësal. Mhm. wax euh, exactement un peu euh, nan lañu fas yéene demee si élection yi. Mhm. est-ce que ku nekk day dem voilà donc wala dañuy ñoom ñoom dañuy ñëw rek wootu si kenn si candidat yi moi je dirais pas Diomaye je dirais pas. Mhm. Abdou si autre mais ñoom ñooy décider. kenn ki nga xamante peut-être mooy euh, boot nest pas li nga xamante mooy euh, candidature Pastef. mooy porter projet ñoom ñetti ñëpp mën nañu dem. Euh, bu nekkee loolu la ñu. est bénéfique na si ñoom. ñetti candidats ñetti candidats moom dama jàpp ne xaw na bëri. Hmm. xaw na bëri xaw na bëri mais ñaar quand même je pense que ce ne serait pas de trop. parce que la dernière fois jotoon naa la wax ni par rapport ak candidature ki nga xamante mooy Habib Sy. Hmm. mën na doon une candidature par rapport ak euh, les libéraux libéraux mhm. euh, qui sont à perte de vitesse actuellement et seen militants yi xamuñu mhm. exactement tey kan la ñuy votel mhm. euh, Idrissa Seck mooy l'ancien mooy libéraux bi nga xamante ni bon libéral bi nga xamante ni génn na dem mais après on a vu qu'il a créé son son parti Rewmi donc je pense que le divorce a été consommé il ah très longtemps yaakaaruma ñenn militants yi bëgg ñi gëm reporter les voix de reporter les peut-être nag voilà Habib peut-être c'est bi nga xamante ni il peut toujours a gardé de bonnes relations tout de même euh, euh, hmm. euh, mais mais bul fàtte tam on on on attribue à Wade aussi de très bonnes relations ak aussi même Karim Wade loolu Serigne Mbacké Ndiaye moo toog fii wax ko donc si ont de bonnes relations à ce point là est-ce que yaakaaroon ni peut-être même consigne de vote mun na jib waaw mais xam nga fii moom Sénégal moom dama yaakaar ne képp koo xamante ni gëm nga ne yow les en tout cas yow parti sa bureau politique ak yooyu peut-être mën nga fa waxe ay te loolu sax gis nañ parfois hmm. nga wax gars yi ne la mais je pense pas que aujourd'hui que la consigne une consigne de vote puisse marcher au Sénégal Sénégal dañoo toll mais Sénégal je donne exemple aujourd'hui tey même les chefs religieux que nous avons à qui nous vouons un <laughs> grand, un grand <laughs> mais <laughs> ça ne marche plus avec je la politique ce n'est pas la religion religion fort politique des marabouts qui s'aventurent ou bien mm. des guides religieux qui s'aventurent à donner des consignes mm. ils ont vu le résultat donc c'est que gars yi dañu leen di déglu ba pare ne leen jërëjëf après ils vont <laughs> dem def li leen euh, neex voilà donc loolu mënatul jàll c'est c'est pas possible mm. les sénégalais sont assez matures c'est le temps des consignes les sénégalais aujourd'hui ils ont la liberté euh, de de choisir sereinement ki nga xamante ni moom lañu yaakaar ne mooy doon euh, moom lañ yaakaar ne moo gën peut-être si ñoom wala moo gën si mm. seen i attente wala moo gën si réew mi quoi donc euh, là là moi je ne m'inquiète pas hein, je ne m'inquiète pas par rapport à des consignes de vote d'accord donc euh, na Ablaye Wade juboo ak ki nga xam mooy Amadou Ba Euh, Karim Wade ak Amadou Ba bon en tout cas euh, c'est pas ce que dit Karim Wade Karim Wade hmm. dit que Amadou Ba c'est quelqu'un qui qui donne des <laughs> donc euh, c'est un habitué donc bon bu dee tamit c'est un discours de façade bon tant hmm. mieux yàgg nañ ko fi dégg de waaw sinon bon en politique moom bon xam rek mënoo doxal ka booy dawal indo man man politique la en 2000 en 2000 laa pare laa pare man si <laughs> bon on va pas. mais ak cas de transhumance yi fi am sax. on a vu d'anciens farouches opposants yoo xam ne tey ils ont vraiment retourné leur veste. à partir de 2000 on a vu quand même euh, la transhumance. des scénarios incroyables. voilà la transhumance était était était la et était le leitmotiv je pense. Euh, bi nga xamante ni moom la nit ñi doon euh, kii nu mu tudd yenn politiciens yi. doon doon fësal. donc da nga leen di gis à chaque fois voilà les gens ils ont quitté le PS. ils mm. se sont retrouvés au niveau du Parti démocratique sénégalais, encouragé bien sûr mmh. par son mm. leader emblématique, ouais. Ablaye Wade. Mmh. Ablaye quand même c'est quelqu'un qui a aidé, rendu service à la démocratie sénégalaise, mm-hmm. mais quel nit la koo xamante il a donné des coups à la démocratie sénégalaise parce que il a facilité mm-hmm. euh, le nu mu tudd transhumance bi nga xamante ni euh, mu ngi doon am euh, voilà quoi donc di a ay. ça s'est aggravé sous le président Macky ah, mais xam nga man moom le président Macky Sall. euh, je pense pas qu'il va, il faire moins qu'Ablaï Parce que mon <laughs> Ablaï Wade, c'est son père spirituel. Aujourd'hui, si on ose encore une fois, euh, à partir de 2000, euh, presque personne ne connaissait le président Macky Sall. Mm -hmm. Et je pense pas qu'il était même euh, dans les bonnes grâces du président Abdoulaye Wade. Il a mhm. fallu qu'il y ait cette présentation-là d'après, mhm. n'est-ce pas euh, En tout cas, il est beaucoup relayé ça mhm. ñu ne président Macky Sall dañ ko présenté ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Wade boobu la ñu xamante donc Abdoulaye Wade l'a aidé à gravir les échelons tant mieux euh, mais euh, après donc gis nañ ne donc euh, lépp lu mu am sur le plan politique quand même il l'a obtenu grâce à à son compagnonnage avec le président Abdoulaye Wade donc euh, voilà donc euh, mënul taataan foofu noonu ba nga xamante ni moo mu màggee fa mm. vraiment mu couve ko donc président Macky Sall peut-être ñëw def leneen donc lui aussi daa encouragé li nga xamante ni mooy transhumance mm-hmm. euh, gis nañ fi ñi nga xamante woon sax dañoo ne les transhumants dañu war a tëral rey leen mm-hmm. donc ñooñu après on a vu bon ils ont rejoint le camp <laughs> présidentiel léegi nag ils disent qu'ils sont pas du camp président ils n'ont pas fait de la transhumance <laughs> sont des alliés voilà ce sont des alliés après maintenant euh, la différence est vraiment dafa dafa loolu mooy xeeñ avec audience bi dégg nañu euh, Mamadou Lamine Diante lecture Euh, Cheikh yaakaaroon ñoo ñu dem xëy na ñi nga xam ne peut-être ñoom ils veulent participer euh, ci moyen bu ñu mun a am ñu jaaree foofu dem am jàppale xëy na bu ñu indil le candidat de benn bugg yàgg parce que président Macky Sall quand même xam nga ne ñu toll noonu du ñu dugg ci pale ba te du leen wax yaakaaruma ko. waaw mais ñi dem du leen jéem a xëcc bien après avoir la ñi dem quoi. ok ñi dem quand même bon c'est vrai y a beaucoup de recalés. mais ñan ñoo dem am na recalé yoo xamante ni man je moi je ne les connais pas. oui oh. euh, le nom que j'ai vu sur euh, voilà quoi <laughs> sur le communiqué euh, ou bien sur les décisions rendues par le conseil constitutionnel. ok am na ci ñoo xam ne vraiment waaw kenn xamul leen que je ne connais pas qu'on découvre pour la première fois donc ñooñu aujourd'hui bon ñu dem. c'est voilà ils ont leur raison mais xam nga politique Sénégal comme ni ma la politique business la. surtout présidentielle. Sénégal loolu politique business dafa am fii gars yi dañuy euh, dugg ci politique nii rek pas pour euh, satisfaire euh, Euh, pour s'occuper des voilà, affaires de la cité. Voilà, non, pas c'est euh, pour pouvoir euh, hmm. se trouver euh, un débouché hmm. quelque part, gérer une direction, ouais. finir dans une agence, hmm. finir ministre quelque part. Atterrir quelque part quoi. Donc ñoom à se caser. Donc am na ñooñu ñooñu négocier avec eux, c'est très facile. Donc ouais. il suffit de leur faire des promesses et leur rembourser un tout petit peu les petites dépenses qu'ils ont eu à faire de gauche à droite pour les parrainages. Xam nga. je pense que le tour est joué. Après nga xaar ba élection mais ces gens aujourd'hui kan la ñu mën a convaincre donc euh, par rapport c' est ça le problème mën nañu am nombre mais est ce que dinañu am qualité. mbooloo waaw mbooloo bi. en général ñooñu di dem ils partent seuls. parce que dañuy ànd ak ñoo xam ne aussi ay nit lañ ñu am lu ñu bëgg. ñu am lu ñu gëm souvent c' est c' est euh, comme ça ils y vont seuls. bëgg nga dem def une carrière politique. Hmm. Euh, respectable am na yoo xamante ni mënoo si si ànd. Hmm. donc aujourd'hui mënoo ne yow tu es un opposant farouche. en tout cas loolu nga woowee sa nga jékki-jékki dem pale ñu ñu baab la wax ak yow am luñ la dikk wala am loo waxtaanee nga jékki-jékki ne da ngay jàppale Amadou Ba donc tu auras perdu toute cohérence yow mm-hmm. en un mois tu pris euh, deux décisions contraires mm-hmm. yow bi ngay soog a ñëw da nga newoon non li fi nekk baaxul dama war a falu su ma faloo ma mm-hmm. changé yow yaa dem <laughs> donc euh, voilà même si Amadou Ba il prône la continuité dans le changement bon d'accord donc ñoom si <laughs> j'aimerais bien voir <laughs> après tamit bon voilà nga dem nga dem fekki ko mais les Sénégalais vont toujours juger et comme je fois euh, histoire Euh, ku nekk dalay teg sa place aujourd'hui on a vu euh, bon fekkee wuñ ko mais gis nañu ay temps Hitler ak yooyu noonu am na yu fi xewoon mais l'histoire raconte tey Hitler bu bu buy nettali Hitler place bu ko jox personne ne voudrait être à sa place amul kenn ku bëgg sa grand-père nekk Hitler donc euh, amul kenn ku tuddi bon ga mu ma ne am na sax nit ñu sañati di tuddee seeni doom Hitler <laughs> donc loolu noonu donc l'histoire jox na ko place bi nga xamante ni mm, moom la yaakaar moom la mérité donc y a des hommes honorables pour ne pas sortir du Sénégal euh, Mam Abdul Aziz mm. si n'est-ce pas à chaque fois quand même c'est des gens cités en référence euh, lu dëkk bi métti métti métti seeni kàddu la ñuy dëgmal hmm. pour ne gars yi écouter ñun ñii ñëpp jaar nañ fi et ils ont eu quand même à avoir un comportement exemplaire bi nga xamante ni tey ñu ngi leen di fàttaliku. Mm-hmm. donc di leen di di ñi nga xamante ni ñooy seen descendance ils s'en glorifient dañuy jékki-jékki ne man de xam famille si laa fierté bokk ci euh, woy ku sokkeekoo ci kenn wax sa maam texte yi nga xamante ni lu ñaaw la bu ñaaw mm. donc loolu dafa am solo donc nit ñi aussi encore une fois c'est bon Euh, voilà comme je dis euh, politique business baa ngi fi mais mm. après au-delà nañu xam ne business bi c'est juste un temps après l'histoire euh, raconter tout ça mm. ñu ñaan mu doon kàddu yi nga xamante ni bu ñu ko tuddee suñu doom wala suñuy euh, descendance mm-hmm. suñuy sët du ñu rus et c'est